parti pour les propos euh, que di njiitalu président conférence des leaders yi fi nekk yépp kenn ku nekk turam ak santam di rafetlu taxawaay bi di wax ne wolof njaay day tàmm di wax yéene nekk la borom moo ci fanaan moo tax nit ku nekk boo yéene nit yéene ko jàmm wala yéene ko di nga yéene sa bopp loolu moo waral ñi fi jaar ñépp malgré ñi nekk ay candidats. ñoom ñëpp dañoo yéene Déthié Fall mii mu doon prochain président du Sénégal parce que matee na kon loolu nañ leen ci jaajëfal bu loolu weesoo man balaa may jaajëfal Déthié damay jaajëfal soxna yi Déthié parce que nag dañ naan derrière chaque grand homme il y a une grande te bis bu mu nekkee ci jafe-jafe yi président Macky Sall jàppoon ko ci kanamu permanence am on a découvert une grande dame te nag bettuma ndax day ndar-ndar sama côté ndar-ndar bi nag mooy wax ndax boo dee fekkente ne danga nekk ndar-ndar da ngay mat sa place boo nekkee ci ginnaawu góor da koy mottali da nga koy dolli da koy dëgëral kon bu denc taxawee taxawaayam bi au delà de nekk moom mi ndar-ndar yor ndar-ndar ci ginnaawam kon loolu dañ ko war a magnifier félicité ko ci di am kontaan ñëw fii ci séminaire bi jàpp naa ni sax mënoon nañ sax ñu participer ci séminaire bi doyen ndaxte programme bi Déthié Fall di présenter Sénégalais yi sunu programme la itam ñun Yewwi Askan Wi su yeboo parce que ñun dañu am lu ñu waxtaanee kenn ku nekk nekk ci biir Yewwi mën nga doon candidat mais dañu am programme minimaliste commun boo xam ne ñun ñoo koy bokk ànduñu rek de ne ku nekk indil sa programme ñu suppu kànja déedéet programme bii cadre PRP yi def tey dinañ ci jël ay poñ yoo xam ni mooy poñ yu primordial ci programme bi boole ko ak programme yeneen candidat yi mu nekk programme Yewwi Askan parce que au-delà d'être ensemble loolu lañu ñu gëm qu'on va gouverner ensemble donc bu ñu naree gouverner ensemble ëllëg ci programme lañ koy teg du rek ci xaritoo àndandoo parce que Sénégal ñëpp ay xarit lañ ñëpp ay àndandoo lañ léegi léeg jamono àdduna mën na tax nit ñi féewaloo mais gëm naa ne ñi bëgg Sénégal ñëpp tôt ou dinañ daje donc foofu euh, président Abdourahmane Diouf wax fa waxee dafa am ñu bokk génération génération de mentalité te loolu nag tàmbaleewul tey dafa tàmbali xëy na bu yàgg ci nu ñu yaree ak waajur yi nu ñuy def ci nit ñi ndànk-ndànk. mu dem ba tey nit ñi bu ñu waxee léeg-léeg da nga naan lu tax ñëpp mënuñoo bokk benn baat parce que ñii presque ñoo bokkoo xalaat mais xëy na dafa am ay différence yu am ñun nag ci biir Yewwi loolu lañ nekk di liggéey c'est def le tout li ñu boole ëpp li ñu féewale je pense que bisu tay bi bu ma ñëwee du sama xalaat rek la ñu ñi di xaar ci man war naa wax itam lu ma xalaat ci Déthié Fall mii seen njiit di seen candidat ngeen gis ci moom ay qualité qualité yoo xam ne am na ci yoo xam ne ñun partagé nañ ko ak yéen moo tax suñu ànd bi neex man Déthié Fall maa ngi ko xam 2016 ci cadre Manko yàgg nañu nag cheminé xam nga léeg-léeg nit ñi dañuy foog ni dañuy xëy rek gis média yi ñu foog ni nit ñi ci terrain la ñu xamante déedéet nit ñi des fois ci terrain yi la ñuy xamante ñu yàgg ah ci permanence su président euh, Malick Gakou ñu gase fa ànd samp gor ca wax ca ànd xeex boobu ba léegi nag fulla ak fayda rek laa gis ci moom ak taxawaay bu mat ak nit ku am ambition te loolu nag maa ngi ko ciy félicité parce que nit da nga am ambition loolu message la bu muy won jeunesse bi parce que bu amuloon ambition xëy na fi mu féete woon ci parti bi mu nekkoon tey du ci doon am cër mu ci am mais dafa mës a gëm boppam dafa mës a am yaakaar ni tam ni tey war naa mën a def lii donc kenn ku nekk ci li nga nekk boo ci wanee fulla ak fayda rek bis dina mës a ñëw comme lu ñuy wax ku yàgg ci teen baat fekk la fa fulla ak fayda la wone ci manko wone ko ci FRN ñu ànd doon toog ci ay cadre waxtaan ci dialogue bi muy wax ni tey di ko waxtaanee ñu bëri foog ni dafa bees moom xam na ni du lu bees euh, dangay fàttaliku anecdote sax boo xam ni mooy suñu première altercation mooy naa bi président Macky Sall bëgg euh, tey def monnaie d'échange bi ñu koy dikk taxawal ñu ngi ko taxawaloon ci les citoyens simples mooy ñi amul les indépendants mu bokkoon ci ñu ko waxtaanee mu ñëw rek ma song ko ne ko décce lii mooy lan lu tax ngeen dem waxtaanee indépendant yi ñoo def parrainage loolu vraiment da ngeen ñu bett mu ne ma may mu ne ay indépendant citoyen yooyu taxawul dama ni boo bëggee xeex ñëwal ci parti politique yi ndax ñu dañuy politique donc c'est quelqu'un qui s'est toujours assumé dafa mus a assumer dafa mus a assumer engagement politique am anecdote boobu laa ci bëggoon jox boobu ba léegi itam vraiment changé wu ci loolu dara donc euh, ñu di ko ñaanal jàmm parce que jàmmam mooy suñu jàmm ndax ñëw bokk njaboot gi di ko ñaanal itam réussite di ko ñaanal yàlla sàmm ko di ko ñaanal lépp lu nga xam ni mbébét na ko te mu nekk yéene mu nekk euh, wëllëre mu nekk pas-pasam yàlla may ko mu mottali ko donc kàddu yooyu laa ci amoon di ci di ci seede di tëjee rek ne ñun famille lañu fan yi nag famille léeg-léeg mu am ay yëngu-yëngu nit ñi duñu juboo ci seen biir mais nañu jàpp ni fami lañu moo tax ñu war a xuloo ci suñu biir waaye yàgg-yàgg dañuy juboo parce que li ñu boole mooy suñu deret suñu deret nag mooy Sénégal donc Yewwi Askan Wi quel que soit les troubles na ku nekk jàpp ni sa mag ngay waxal sa rakk ngay waxal mënoo koo dagg sànni kon nag xoolal li nga ciy wax xoolal li nga ciy teg xoolal li nga ciy teggi ndax nga xam ne yàgg-yàgg da di toogaat kon nañu sóor loolu ñu bàyyante xel ñu mayante cër donc Déthié bon vent et bon courage et félicitations perte merci beaucoup di ci nuyoo bi wax ni liggéey bii mu def ak ay cadre PRP ñu sumb ko yàgg na ma xam ci dara ñu koy yàq tey di ko présenter sénégalais yi yàlla na nekk liggéey boo xam ne du yam ci ay këyit yàlla na nekk lu Sénégal di jariñoo Afrique ak àdduna Serigne Sam Mbaye boroom xam-xam la woon bu sell dafa am livre boo xamante ni buntu livre bi boo koy lire tout le temps da ngay gis soyons ensemble dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la main divine sera là ma bamtuwaat ko mu ni soyons ensemble dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la main divine sera là yàlla suñu borom moo ni ajjamaatu rahma moo ni fépp fu nit ñi booloo ma wàccee fa sama yërmande bi ma ñëwee déglu sama frère Abdourahmane Diouf élégance bi mu waxee ci président Déthié Fall te ñu bokkoon langue tey ku nekk yor sax langue ñu war langal Sénégal sama xol dafa sedd may wax ni dëccee tey bàcc gajaga fu mu tëdd xolam war na sedd yow xam nga ni man je suis ton jeune frère mais xaritu sama waajur bu góor li mu bari réere mbir mën a doon gis yaag paa bi ngeen di nekk ci oto bi di dox lu bari pour le Sénégal mu mës maa sama rakk Freddy mën na ko seede di ma badara ma fekke mu wuute dëcce mii am naa ci moom yaakaar tey fa mu tëdd war na fier ci yow ma lay wax ni man njiit ñaar yi damaa jàpp ni da cee am solo mooy compétence ak vertu gis nga compétence ak vertu yaakaar naa njiit lu ko am li ngay soxlawaat doywul pour doxal sam réew te Déthié tu es compétent tu es beneen bi mu laaj nag mooy njiit day am courage day am fit yàggul dara fekk naa la nga nekk ci ay lien wu détention mais xam naa ni ndànd ak colom faar gi mi ngi ci sa deret ci daw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bëgguñoo guddal waaye dëcc bokk nañ ci ñi Sénégal am yaakaar lool ci moom moo nar a grand frère Abdourahmane Diouf <laughs> maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu waa Yewwi Askan Wi yëpp nga xamante ni combat bi ngeen di mënee Sénégal yëpp teg nañ ci seen bët suma grand Malick Gakou suma jigéen Maymouna Bousso suñu papa Habib Sy maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp président di sama waay ju bële nga xam ni bu toogee dafa mel ni sëñ Moussa Nawel ñëw na muy suñu papa Basirou Gumba la ñu ngi lay tatagal Mamadou Gumba la ñu ngi lay tatagal di la gërëm jëf kii nag. lii muy def dama ko daan def moo yor micro nekk animateur nekk DJ nekk régisseur général ba dem ba nekk chef de service ma dem ba étudiant di leen former ba tey mu koy def sama xool sedd rak lépp lu nit di am ci carrière animation ak am ko ci média yàlla na la dal jër ngeen jëf wasalaatu wasalaamu ala rasulillah